Guy Marius Sagna dem si àll bi di taxawal eh, teewal ay sénégalais comme ni ñu koy defee saa su ñu jàpp ko tëj yeew déshonneur et parti ñoom ñoo ko def ils sont pas dignes de leur tenue ñoom ñoo jaay seen ngor ñoom ñooy politique léegi nag bu police ñàkkee fayda ba institution bu war a demeurer di def ñu sàggan ba yàqu ko ci politique ak xaritoog parparloo ak seen intérêt crypto personnel gendarmerie ñàkk fayda ba ay général généraux gendarmerie di politique di di di wàcce seen bopp ndax seen intérêt crypto personnel ba pare ne kenn du ko fi waxee fii Sénégal état de droit la te constitution Sénégal moo ñu tënk may ñu ñun ñu am kàddu wax ànduñu si lu ñu d'accord ñu ñu loolu mooy démocratie loolu mooy république donc dañuy wax ñoom xamal leen leen Guy Marius Sagna du moom la ñuy bàyyi ñu koy patam patamee te Sénégalais yi laay waxal nag c'est très important nañ ko bàyyi xel suñu moytuwul dinañ am gàcce ci kanamu Guy Marius Sagna suñu moytuwul Guy Marius Sagna dinañ ko amee àq parce que mënu ma comprendre amul kenn du man du kenn amul benn activiste wala politicien bu def li Diomaye Sagna li muy def kenn defu ko si kenn defu ko nañ waxante dëgg quoi li muy daj ndax Sénégal bàyyi dafa am jabar ami doom kenn cotisé lu ko amul fond de amul dara muy reyante ñuy ñafe muy ñafe saa su ne ñu téye ko jàpp ko tëj ko te Sénégal rek moo tax kenn jàpp ko ci doyati kenn jàpp ko ci ñàkk fayda donc jot na nag ñun ñu jël suñu wàll ci wan ko ne ko ñun ay góor lañ tamit war ñu nangu mu ñuy gën a gore quoi ndax bés bu ruuj bésulee day toj looloo tax nag ñuy woote manifestation vendredi bii bi bis topp manifestation boo xamante ne ñun xam nañ ni préfet Dakar comme day politique amul benn personnalité ñoom ñëpp yàq nañ institution yi benn institution amatul benn dignité amatul benn respect ñun ñun le peuple sénégalais wan leen ni ñun kenn duñu teree jël suñu àq suñu yeleef moo tax ajuma bii ñëw bis topp incha allahu rabbi dañuy woote manifestation dugal nañ déclaration bi déclaration baa ngi nii ay yu baree bari boobu ba léegi ñu ngi jug. di def ay déclaration teg ko si yoon ni ko constitution Sénégal diglee ne am ngeen droit yéen droit constitutionnel la yoon may na leen boo leen bëggee génn taxaw ne d'accord leen ci lenn ngeen bind ak laajte maanaam yëgal autorité wax leen ne la man sax da autorité du ma la autorité man imaam yi ñu sama autorité compétente man ñoom amuñu fulla amuñu fayda mais comme noonu lañu koy waxee on est obligé autorité compétente yi wax leen ne leen ñun am nañ droit manifester daa def déclaration bii parce que boo ko toppee muy bu ñu yëgal préfet de Dakar ne ko dañoo bëgg ñaxtu ci dundu bu cher bi dañu bëgg taxaw ñaxtu ci policiers yi tuuraate dañu bëgg taxaw nangam dañu bëgg taxaw ci dëkk bi ni muy doxee en tant que citoyen préfet préfet da koy bañ carrément catégorique du nangul dara léegi nag dafa jot nag sénégal yi conscient xam lan moo la ñuy tax a jóg kan moo la ñuy tax a jóg ak lan moo ñu boole ndax li ñu boole Sénégal la te jot na sénégalais yi xam ko moo tax may wax ni suba incha allahu rabbi Guy Marius yi taxaw ci kanamu juge bi justice bi nag Macky Sall yàq na ko Macky Sall yàq na gendarmerie Macky Sall yàq na police Macky Sall yàq na lépp dëkk baa ngi mel ni lu kenn xam li fi des ku sug tuut muy ak ngor na nekk si ñun le peuple sénégalais ak jeunesse bi nga xam ne dañu conscient consciente taxaw pour dimbali Sénégal loolu moo tax ñu jub donc on fait appel à toute la population sénégalaise rawatina kilifa diine yi Macky Sall respecté kenn respecté wul benn institution dañ naan violé violé violé kon moom mooy violeur bu mag bi ndax violé na constitution violé na lu ne donc kon li ma bëgg ñun leeral ko xamal ko sénégalais mooy. Guy Marius Sagna bu ñu ko libéré wul fii ba weekend bi jàll vendredi prochain ñu accepté manifestation pour ñàkk ko accepté def nañ déclaration suñu devoir def nañ ko dañuy waat manifester pour sa libération dañuy manifester pour ñu may ñu ñuy manifester jox ñu suñuy droit suñuy àq suñuy yelleef donc loolu mooy kàddu bi ma bëggoon wax mooy delluwaat rek ci souligner waat ni nañ ko xam gendarmerie et la police dañu yàq deru police yàq deru institution yooyu ñu mel ni ay général Moussa Fall ak ay mooy autorités tekkiwuñ dara loolu dañ leen koy wax ñu xam ko te Guy Marius Sagna même propos yi mu wax loolu la ñuy répété waat gendarmerie déshonneur la et ñun ñoo ko wax on répète les mêmes propos nañ jàpp ñun ñëpp te on va manifester pour Guy Marius Sagna on va manifester pour libérer ce peuple là salaamaaleykum